Voilà, je voudrais d'abord commencer par euh, rendre grâce au bon Dieu pour nous avoir une fois de plus donné l'occasion de vivre ce programme de remise de dons euh, initié par le président Cheikh Alassane Sen et spécialement consacré au lieu de détention de la capitale. Euh, comme vous le savez, en son nom, mais également au nom de la délégation qui m'accompagne et dans laquelle on peut distinguer les différents membres responsables de la fondation, mais également du mouvement Dagdep. Nous sommes venus donc remettre ce don aux différents régisseurs euh, de la capitale. Et j'ose espérer qu'ils en feront bon usage. Euh, la fête de l'Aïd el communément appelée la fête de la Tabaski, est un moment de retrouvailles. C'est un moment de très grande communion. Euh, vous devinez donc aisément euh, l'angoisse, l'amertume, la tristesse, le stress qui habite la personne qui la passe loin de son foyer habituel. Il s'y ajoute que la prison regorge certes de coupables, mais elle regorge aussi d'innocents. À l'image du président Cheikh Alassane Sen, qui a passé 15 mois de sa vie. Euh, ce passage a exercé une fascination sur sa personne. Et c'est cette fascination-là qui a présidé à la création de ce programme qui est désormais inscrit dans l'agenda social de la fondation qu'il dirige. Je voudrais donc en profiter pour remercier le directeur de l'administration pénitentiaire. Il nous a facilité le travail et le chef me charge de vous dire qu'il a une pensée très poussée pour ceux qui sont à l'intérieur, les coupables comme les innocents. Vous savez que en droit, il est beaucoup même plus facile pour le juge, euh, dans son intime conviction de libérer un coupable que de condamner un innocent. Et nous savons tous que les prisons sénégalaises regorgent de personnes innocentes qui y séjournent. Comme vous le savez, nous avons tout de suite euh, eu un entretien avec le représentant, trois imams qui nous ont une fois encore gratifiés euh, de leur connaissance très poussée de la religion. Euh, donc je voudrais une fois encore remercier le président Cheikh Alassane Sène pour cet acte qu'il compte pérenniser. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il a encore euh, distribué pas moins de 100 moutons euh, à l'occasion de cette fête de l'Aïd el-Kébir. Euh, donc euh, je voudrais encore vous remercier, remercier la presse euh, pour cette couverture. Je vous de la politique avec le mouvement. On va vers locales. Également, la, Covid qui est là et avec euh, une forte des cas. Craignez-vous pas que les élections locales vont être votées à cause de la Covid Écoutez, ça c'est à <laughs> à l'appréciation personnelle du président de la République. Euh, comme vous le savez, il vient juste même de boucler une tournée sur toute l'étendue du territoire. qu'il a mené un peu partout. Euh, il semble avoir donné avant-hier un que si les cas de Covid persistent, il va finir par euh, ramener les restrictions. Mais je pense que nous n'irons pas vers un pour ce qui est du mouvement d'Ajdep, c'est vrai que depuis la présidentielle de 2019, nous avions mis en veille un peu nos activités. Euh, le président en avait profité pour euh, prendre des années sabbatiques et visiter, euh, aller, voyager. Mais puisqu'il est de retour, il est évident que les instances du mouvement vont se réunir pour déterminer la suite à prendre dans ce sens. Mais craignez-vous pas qu'on reporte les élections locales à cause de la Covid euh, Je ne crois pas. Sérieusement, je ne pas. Je pense qu'ils n'ont... Vous savez, les maires actuellement euh, deux ans de plus. Ils ont fini leur mandat depuis deux ans. Le président ne plus reculer. Il a le dos au mur. Et c'est la raison pour laquelle même il a avancé une date en janvier. Même si les cas de Covid persistent. Même si les cas de Covid persistent, il y aura des élections. On doit aller, on doit respecter, respecter le calendrier électoral. Et le mouvement, euh, le Le, le mouvement euh, aura son mot à dire. Vraiment, bon, de toute évidence, nous, nous, nous, ne comptons pas mener ce combat en solitaire. Il faut que nous nous rejoignions à cette dynamique unitaire pour rejoindre l'opposition sincère qui est là et puis parce que plus rien ne peut se gagner dans en solitude voilà ça c'est sûr. waaw ñu ñu ñëwoon am mbégte bu rëy tey di sant suñu borom bi mu ñu mayaatee ñu fekkee bés bi euh, nga xam ne président Cheikh Alassane Sène moo ko xaatimal boppam jagleel ko kaso yi euh, nga xam ne. dafa baaxoo di jël yu mel nii di jël euh, ndimbal lu mel ni ay nag ak ay denrée indil ko ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir kaso yi ci biir ndakaaru euh, feetu tabaski dafa nekk feetu boo xam ne feet bu rëy la ci senegal ndax feet la buy dajale ay nit ci kaw gi boo seetloo ñu baree ngi dem seen dëkk yi te gëjoon nañ fa daaw buy la yàlla nattoo nga ko daan passé sa fekkee woo ko fa ren mu metti mu fekk la nga nekk ci ay loxo dafa nekk lu metti loo xam ne luy jàpp nit la président Cheikh Alassane Sène jàpp ne ngir soulager ci bés boobu nit ñi xaw a améliorer seen condition de restauration mu ne dina am lu mu leen jagle ci wàll woowu loolu moo waraloon suñu tànk fii tey euh, ñu mën ci yokkit ne kaso euh, bare na ay defkat mais bare na tamit ñu deful kon li ñu ci mën a jàpp rek mooy moom ci boppam mës na fa dekk te deful waaye terewul def na fukki def na fukki weer ak juróom ci kaso. kon bi mu génnee yàlla baaxee ko mu bàyyi ñi fene xel lu ko yàlla wërsëgal mu bokk ko ak ñoom kon loolu tamit dafay nekk loo xam ne lu rëy ci ñun la kon kàddu yi euh, ay kàddu ngërëm lay doon ay kàddu cant. ndax léegi nee na bés bi boole na ko ci biir calendrier socialu fondation Sallallahu ala Muhammad bi nga xam ne moom la yore kon ñu amoon mbégte gu rëy daje fi tey ak responsable fondation bi yëpp ñu gunge woon ñu. voilà bu weesoo loolu ñu ngi jëm ci mais gis nañ cas yi yokku na bu a ko gisee mouvement yi yokku na doon na neex euh, ki ñu ko doon annoncé. fekk ne deful woon dara loo xam ne dafay nekk en contradiction ak gestion pandémie bi ndax bu leen fàtte ne nag njiitu réew mi fan yi rek la boucler tournée boo xam ne def na maillage territoire national bi yëpp donc moo tax euh, nit ki boo koy yar tam dafa am loo koy jàngal parce que tey sénégale yi boo leen di wax waxu confinement wala waxu mesure barrière sax dañ la naan njiitu réew mi doxewu ko waaye ñu jàpp ne rek euh, jàpp ma ne man ci sama bopp dans mon intime conviction que ne que lu kaay yokk-yokk élection yi de war nañ ko mën a puusaat ndax nag bul fàtte ne maire yi fi nekk yëpp seen mandat jeex na depuis deux ans te ñu ngi toog. loolu la bi aussi. fichier euh, ne amuñu luñ ci wax waaye dafa nekk combat yoo xam ne nit mënu ko mënee en solitude wala en solo waaye li ci mën a am ba am rek mooy mouvement Daj Dëpp pare na pour dugg ci bépp cadre unitaire. pour xeex ko donc di tàllal loxoom opposition bi nga xam ne opposition bu sincère la bu nekk ci biir réew mi ngir ñu mën a mën a combat yooyu.